bi xam am na sax yoo xam presse bi xamu ko waaye nag man aussi du ma nekk di wax lépp lu nga xam daf ma concerné wala dafa concerné yenn dossiers yi parce que am na ci dossiers yoo xam mu ngi. mu koy poursuivre ba léegi maa ba léegi. mais mais monsieur le maire man ci ci ma du ma ak yow parce que. su fekkente ne da liggéey ci pétrole bi nga xamante ne waa Sénégal yëpp ñoo ko bokk. ngay liggéey pour waa Sénégal nga xam ne yow lim ciy def. xam nga ni ci yoon liggéeyuma pour waa Sénégal man suma bopp laa doon liggéey mais pétrole mais bi ah, kon boo ciy liggéey du pour ñu. ba ma ci doon liggéey sama mhm. bopp laa doon liggéeyal. d'accord salarié laa woon. d'accord di ci daan doole. Mhm. ah wax dëgg yàlla di ci fekk su may soxla. mais indirectement yaa ngi ciy liggéey pour waa Sénégal. ndax pétrole bi bu jaree ñun la jaral. waaw si ñun lañ ko war a investir. Mhm. léegi bu dee yaa ngi ciy def li ci war coow war na tax nga teggi sa tànk. non xam nga coow moomul lépp. parce que tënk rek parce que dañuy dem festival Salam. d'abord ñaar yu ndaw rek laa ci bëgg a wax <laughs> benn bi mooy entre nous ba may dugg ci job boobu su ma xalaatoon ne. pétrole dana ci feeñ. Mhm. coow am ci kon xëy na sax du ci dugg entre nous. bëggoo coow daal du question bëgguma coow mais opportunité la woon boo amoon rek. ma mhm. euh, jàpp avec président que gënul ma nekk ci secteur public bi ci moment boobu. may ut opportunité bu ci privé bi dajeeg ma xam potentiel de ma dugg ci mais jot nga mos bu baax de. Euh, non vraiment wax dëgg yàlla jotuma doy la nag wax dëgg yàlla parce que affaire bi demee bay neex la coow li bëri ba ma rocceeku <laughs> mais su ma xalaatoon ne. la ma doon liggéey dina dem ba pétrole feeñ ci ba coow yu am duma ci sax dugg entre nous parce que jaru ko aussi du kay man sax coow ragaluma ko mais li mu doon yàq moo ëpp la muy defar si côté journalisme bi ndaxte gis naa seet naa tamit ne yow journaliste nga woon like once a journalist always a journalist mhm. euh, waaye est-ce que mos ngaa xalaat pour tegal journaliste yi benn projet boo xam ne euh, dinañ si mën a gën a yokk seen euh, seen bopp ndaxte ñun ñëpp xam nañ ne journalisme dafa nekk loo xam ne dafa metti at the same time ñun ñoo fiy defar présidence yi ñoo fiy defar nekk est que yow euh, mus ngaa teg any um, euh, wala nga xalaat any project boo xam ne mhm. euh, dafay yóbbu journaliste surtout jeunes yi nga xam ne dañ bëgg a nekk journaliste def naa ba tàyyi waaye journaliste presse moo métti ndax xaalis bi muy laaj moo bëri te am bëri ay incertitude maag sumay àndandoo ñu bokkaloon promotion créé woon nañ fi benn journal bu tuddoon nouvelle yàggul la nouvelle mhm. yàggul ndax koom gi moo xaw a doy waar. demaat naa fi ba ci biir créé beneen. mais ni koom warul loolu li ñee ko foog rek ah, waaye wax dëgg yàlla billaay awma ko. mais nii nii nii parce que gis ni gis nañ ak situation beeg contexte bi ñu ci bëri dañuy làqatu ci ginnaaw ay groupe de presse. mais loolu ci kaaboo loolu ñàkk xam histoire u su Sénégal mooy waral ñenn ñi di ko def soo xamoon histoire presse Sénégal li nga xam ne euh, presse privée toujours dafay positionné contre nguur. parce que loolu moo leen di may crédibilité mm-hmm. donc di dugal sa alal ci presse pour ñu wax ci yow lu baax xëy dañ di nga ko parvenir de waaye kenn du lire journal ba. defoo ko yow. non vraiment aw ma benn intérêt. ci benn organ de presse. wala euh, maire caisse de dépôt hmm. consignation bi nga jiite. moom mooy actionnaire waaw salaam mi ngi noonu waaye bii rek la ñuy <laughs> bi nga jiite. ak benn Sénégal moom mooy Sénégal waaw voilà moo yoroon Sénégal. gis nañ coow li nga xamante ni euh, juddu woon na fi fan yee weesu. Mm. ba directeur général bi démissionné ñi naan ay dañ ko poussé à la sortie et tout ça ndax boobu ba léegi gis ngeen ni compagnie bi xaj na euh, dafa am benn dafa chuté wala bokk activité yi dafa gën a yokk waa mm-hmm. parce que gis nañ ni euh, même ak campagne communication bi président Macky Sall def ba muy dem Paris mm-hmm. dugg ci biir ngir xaj na exactement de vidéos yi communication bi ngir dalal xelu clients yi mm-hmm. passagers yi je euh, peux comme ça ak potentiel passagers yi ndax yëf yi dafa wàcc wala dafa gën a yéeg booba léegi Air Sénégal moom mu ngi yéeg macha allah mm. ndax compagnie boo xam ne biñ ko créé léegi motul ñaari Euh, xam mu ngi ci diggu doomu disons. macha allah ah, ba léegi am na euh, ñetti appareil yu mu moomal boppam ñeenteel bi di waaj a ñëw mois de septembre. Mhm. Euh, am na ñaari appareil yu macha allah ay Airbus A330 neo am na ñaari ATR yu ñu moomal suñu bopp waaye am na yeneen ñaari avion yuy daw ci suñu pavillon ndax ñun ñoo ko loué loolu déjà ci wàllu performance ci compagnie bu ñuy doog a ci contexte Sénégal nekk na lu am solo waaye compagnie aérienne du lu yomb. amoon na ay difficulté vraiment ci démarrage bi léegi nag euh, vraiment xaw nañu euh, maitriser situation bi te au plan commercial man dama ko suivre de très près le directeur général aussi di ko suivre de très près gis nañ depuis un certain moment euh, ay amélioration yu baax. est-ce que ci choix Philippe Bonne. non xam nga projet toujours dafa am fu muy toll dafa am façon nit bu ko war a sooy créer un projet industriel il faut nga am quelqu'un boo xam dafa am profil industriel mënuñu woon am choix bu ëpp bu gën choix wu Philippe Bon nga xam ne dafa am expérience ci industrie aéronautique loolu moo ñu mun a moo ñu permettroon yenn négociation complexe yi pour mettre en place euh, yenn acquisition d' appareils yi ñu facilité ko bu bëri mais dafa am feneen fu euh, compagnie bi di toll xëy na tu as plus besoin d'un manager ou d'un financier pour que mu doxal affaire donc loolu nañ ko war a comprendre. man j'ai juste deux questions xam naa ne festival Salam mi ngi ñëw benn bi par rapport ak CDC euh, dañoo déggoon ancien président de la République euh, Abdoulaye Wade ci campagne bi passé mu tuumal euh, leen ne CDC moom moom fay dem dafa bàyyi woon xaalis bu bari yaakaar naa ci 25 milliards la wax ne la fa bàyyi mais léegi CDC daanaka dara nekkatu fa loolu Abdoulaye après mu ñëwaat. Abdoulaye Wade moom fi jiiñ ne jël naa trente milliards pétrole te dëppoowul ak réalité donc man du référence pour mu wax ne dafa bàyyi woon xaalis kes de dépôt loolu nekkatu fi Abdoulaye Wade ku nekk xam na ne ay waxu politique am vraiment. Euh, ci benn contexte lay doon pour régler benn situation waaye bu loolu passé xëy na moom ci boppam. Euh, day changer sax position. vraiment sunu papa la sunu maam la on naa beaucoup de respect pour lui waaye nag man dama jàpp ne waxu Ablaye Wade ci wàllu politique jarul ngay doon sa dóor sa doom. dóor sa doom d'accord beneen bi mooy CDC est-ce que am na vocation tey jii pour def promotion immobilière. parce que gis nañ ne léegi yéen xaalis bi nga xamante ni euh, par exemple yéen a ngi koy jot yéen a ngi koy investir léegi ci euh, wàllum tabax mi euh, c'est juste une question est-ce que peut-être ñu xalaat. Mhm. jël xaalis boobu jox ko banque. mu mën ko gérer wala jox ko promoteur immobilier yi ñu mën ko dugal ci seen tabax pour mu gën a peut-être moins cher moo gën fuuf peut-être CDC dugg ci biir promotion immobilière. xam nga ñun du ñu liggéey rek di xool lu ñu xalaat rek def ko. dañuy liggéey suñu liggéey war a dëppoo ak li nga xam loi bi moo ñu ko wax loi bi créé caisse de dépôt moo ne mission wu caisse de dépôt premièrement mooy promotion des logements sociaux et des logements de santé loolu la ñu wax ci loi bi après accompagner les collectivités territoriales euh, accompagner les PME et cetera loolu loi bi moo ñu moo ñu wax ni lii ngeen war a def kon suñ koy def defe naa ñu ngi ci suñu rôle bu baax. Bambilor moom yàgg nañu koo dégg de projet Bambilor bi. comme c'est un projet qui était très compliqué. il mm. faut le reconnaître. mais ñu ngi koy redressé waaw parce que y a eu beaucoup de difficultés quand même. tam ñaari tuur yi huit milliards yi ngeen bëgg a def fii ci mamel yi. loolu tamit yow da ngay làmbatu rek. <laughs> non parce que émission bee xat donc dafa bëgg a waaw dafa bëgg a laaj ci mais ah déet mais on va te savoir fii la Pape bëgg dem boo fi woo bëgg dem fii non c'est dommage que émission bi dafa xat tey non li wax huit milliards moo tax mu ne day làmbatu parce que du huit milliards c'est trente huit milliards bëri na dafa juum rek. 38 waaw moom 38 <laughs> milliards yi aussi ñu la dëppoo parce que ñun li ñu def xam nga ku dem bay def discours wax ay chiffres am. Mm-hmm. amatul lu muy nëb. Mm-hmm. Euh, dégg naa benn waay ju wax sax ne non étage 12 étage rek nit yàgg na ko fi tabax te tuddul milliards yooyu yëpp. Mm-hmm. ma ne kii xamul bâtiment ndeysaan parce que bâtiment boo koy évaluer ci coût bi doo évaluer étage nu mu toll. da ngay évaluer surface bâti bi. maanaam yow mun ngaa am. Euh, quinze étages waaye bu fekkee ne ci cent mètres carrés nga tabax bokkul ak ki tabax mille mètres carrés te yegg ci euh, cinq étages. Mm-hmm. surface ba ngay ba ngay tabax. loolu mooy déterminer coût bi. mais est-ce que de contrôle nga yor parce ngi lay contrôler. non kenn du ko contrôler mooy waxu lan am na est-ce na nekk Sénégal yor alal Sénégal te ko contrôler ñun nous sommes contrôlés par la Cour des comptes régulièrement mm. nous sommes contrôlés par l'inspection générale des finance mm. et tout autre organe boo xam dafa bokk ci état mën nañoo contrôler ñu. Mhm. man d'ailleurs bañ may nommé dama daje contexte boo non xam naa ne nag mooy tooñ kay contexte bu doy waar laa dajale parce que dama dajale ñu resserré contrôle bi ci caisse de dépôt ne léegi sax directeur général caisse de dépôt balaa muy investir ci dërëm bu gën a ndaw. Mhm. il faut que mu ñëw euh, défendre son projet devant un comité d'investissement boo xam ne ministre des finances moom mooy désigner kon tey jii su ma xalaatee ne projet bi baax na pour caisse de dépôt sax même su ma amee alal bi pour def ko aw ma sañ-sañu def ko lu dul aw ma autorisation un comité boo xam ne dafa composé ay experts indépendants mais présidé par le ministère des finances. su ma jàllee filtre boobu ba pare. Mhm. ma doog a dem nag su ma conseil d' administration ñu ngi koy commission de surveillance. Mhm. défendraat projet bi une deuxième fois. Mhm. kon ngeen xam ne affaire yi yombeewul noonu. ñu koy wax ay caaxaan